te gar bu ndaw soxna mam xari murtala wéyal doxantum nemeku bi mi def ci dekk bu sel bi ci Touba tay mu seeti woon doomam soxna Ndeye Mbacke fii ci talib joge kebe ci centre formation professionnelle bi mi yor ñu maase tewlu kaddu yu fa joge ginnaw bi mi len joxe enveloppe bu am solo. andi nañ fi ñenti machine yu and ak seen table ak ay wëñ ak ay ciseaux waye loolu waxna ko suñu asaka yene la. ñun li ñu yéene li bëggoon mooy ñëw ba gis. ndax dañoo wax ne loo dégg ak loo gis bokkut. ginnaaw ñëw nañ ba gis nag. ki nga xam ne moom moo ñu jàppale bañ man di jàppalee kooko danañ ko jàllale wax ci centre bii ba mu jàppale centre bi bu ba ëllëgee soxna Ndeye Mariam di wër ci centre yi ci Touba di leen jàppale ak di samp yeneen centre kon bu yàlla dogalee tey ñu ñëw fii bi may ñëw de déggoon naa sa liggéey xamoon naa ne daan nga jàppale jigéen ñi waaye tey bi ma egsee ba ci centre bi gis naa loo xam ne kawe na sama njort ndax nii nga taxawee de ci Daaru Minam bu doon soxna yëpp wala suñu doom yëpp noonu lañ taxawee ci quartier bu ci nekk ci Touba kon defe naa ne loolu ñuy wax chômage ak xale yu jigéen yoo xam ne dañoo toll ci jàng te jànguñu di taxawaalu loolu du am Touba lii nag mooy liggéeyal Serigne Touba liggéeyal Serigne Touba da ngay tàmbalee ci benn di ca def la nga man ak la nga mënut ba keroog sëriñ Touba di la ci fekk si ndax Serigne Touba ni ko sëñ bi waxee ku ñeme fay la ñemewul bor ku ko liggéeyal itam dana la fay. nit kii jot lay jiitu joote te wax naa la ne soxla si waxtu wu ne mi ngi ñëw mi ngi may nemmeeku mooy ngi seet. kon nag ñu itam ndigam soob na yàlla duñ ko seetaan ci dara ndax ku ëmb sa sànqal ëmb sa kersa te def na fi lu kenn mës sa def kon nag li ñuy ñaan dolli ko tàllal loxo rek. Modou Ablaye nag ma lay dénk ndax bu ñu gañee Touba gépp te gañewuñ Daaru Minam ñu am lu ñu neex Daaru Minam yow lañ ko dénk Daaru Minam la ñu bëgg a gañe premier tour au soir du 24.